juróom-benn ñu nga xam ne ni jamono ji ña ngi leen di seet kenn gisu leen juróom-ñeent jot nañu ne placé sous mandat de dépôt dañu leen téye foofee sa konkam euh, konko euh, konkoma ba juróom-ñeent ñi foofee la ñu baw ba futt ndax nee nañu ko bàkkale maanaam dañu ko patam patamee ñu ànd si ba bi wureegul buy sukkandikoo ci ay yi nga xamante ne jot nañ ko taataan. lu toll ci fukki nit ak juróom ñoo song bile usine juróom-ñeent ci ñoom jamono jii nag ñoo ngi leen placé sous mandat de dépôt ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour juróom benn ci ñoom gendarmerie moo ngi leen di wër wër bu méttee métti waaye ca dëkk bi nga xamante ne mooy Kokomba askan wi ñoom mer bu futu lañ def ndax ñoom dañoo jàpp ni enquête bi dara baaxu ci dañ ko bâclé. nan ngay ñëwee ci dëkk bi yëpp jàpp ko motul fukki fan. nga jàpp ñëpp ne ñii ñoom ñooñu dañ koo def te amu ci kenn koo fekk mu yor loo xam ne dañ koy dañ koy tere amu ci kenn koo xam nee na ne lii man maa ko def amul kenn ci koo xam ne dañ koo daj dañoo daj moom ci àll mu yor luñ koy tere lu tax ñu mën koo jàpp. donc looloo tax ñu ne li tax ñu patam patami mbir mi ñëw jàpp dëkk bi yëpp même pas une semaine ñu jàpp leen defeere loolu am lu nekk ci biir. ñoom nag ñi interpellé ki nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur. di Antoine Félix Diome. ñu ngi interpellé ministre de l'Intérieur ñun ay citoyen lañu. en tout cas ak li ci manta am ñoom askan ka combat ñu ne jël nañ ay avocats yi nga xamante ne ñooy plaidel yii la juróom ñeenti nit yi nga xamante ne ñoo ngi tëdd jamono ji ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour. Modou lu xewee sa Sindian Konkoma village ba noonu la tuddee askan wi nee nañ dañu bàkkale dossier bi de par sabab ñu teg loxo juróom-ñeenti ñi xëy na askan bi ay enquêteurs lañ. xëy na ñoom ay enquêteurs lañ. Badou ay Colombo. Euh, dossier bi maam. moo je pense que enquête bi toll. bu ma leen doon xelal damay wax ñoom ñu collaborer ak waa gendarmerie pour ñu mën a teg loxo yeneen juróom-benn samba yi daw ba noppi. daw ñu leen di wër. wala ñu ñu foog ni ay samba boy la parce que enquête euh, bu bu dara amee mënoo ñëw jàpp kenn parce que amoo directement preuve ci moom soupçon la enquête la ñu wax. da ngay téye di continuer di chercher loolu mooy yoon jàppoon nañu ñeen fukk ak benn premier jour ba ñeen fukk ak benn bàyyi nañu ci ñoom fanweer ak ñaar retenir ci ñoom juróom-ñeent di seet juróom-benn loolu enquête la wala du enquête. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, gis nga localité bu ñu bëggee kaaraange du question yet bi dafa dal ci sama kaw même bu dee sa doom même bu dee sa jarbaat même bu dee sa rakk boo bokkal ndey ak baay bu ñu ko cité ci loo xam ne affaire vol la. da ngay bàyyi yoon def liggéeyam mu ne enquête ba mu leer bu leeree bu setee gàcce ngalaama bu fekkee setul nga xam ni moom moo dëng gis nga gis nga gis nga gis nga doom wala jarbaat kenn du ko questionner ak jubadi gendarme yi nekk foofu man xaw ma leen mais du ñu ay dof mais gendarme yi yabuñu waa dëkk ba ñaata dëkk moo nekk Diass moo nekk Sindia ak li ko wër man sama village ci Sindia la bokk ay jeunes ñu ngi fa yeneen village ci Sindia la bokk ay jeunes yu ngi fa Sindia ci boppam ay jeunes yu ngi fa mais lan moo tax ñu am preuve am piste bu ñu topp ba dem ci dëkk boobu man bokk naa ci njëkk a dénoncé descente bi gendarmerie def foofu noonu mm-hmm. mais mais mais gendarmerie dañu am information boo boo remonté information yi xool ni ñu ko ni ñu ko defee ak ni ñu leen jàppee da ngay xam ne yabu ñu leen pour dem jàpp leen parce que dëkk ya fa nekk bari na bi fi mu toll man bu ma leen doon conseillé waa dëkk boobu noonu dégg naa sax ci sama sama analyse bi neen daañu ma yónnee sommation interpellative maa ngi xaar boobu les sommation interpellative merci j'assume mes propos gendarme yi yabuñu waa dëkk boobu pour dem di fa jàpp quarante une personnes dañu jàpp quarante une libéré trente neuf retenir neuf di charger six nañu collaborer ak la justice pour ñu jàpp six yi des bu ñu mënee enquête bi approfondir ko ñu juger leen képp ku ci bokkul bokkoo ci mais képp ku ci bokk ñu teg la loxo parce dénoncer sa doom bu jubul dafa yokk sécurité ci sa biir famille. Mhm. Euh, foog ñu bàyyi caaxaan. yarin la sax encore les journalistes bu ñu woowee ci yenn rencontre yi yenn ba ngoon jot du événement. Hmm. nañu ñëw couvrir jël déclaration ba dem ñibbi mais yow wootem ndajem ngénte wala tuur rey ay nag def noos pour dénoncer la justice jaru ko xam nga looy dénoncer. bu fekkee sama doom voleur la wala sama jaabaat dama koy dénoncer collaborer ak la justice loolu mooy dëgg Mame Mbaye yoon di def liggéeyam jamono ji as askan wa ñu ngi koy lu nee nañ dañu bàkkale dossier bi Birahim noo ko jàngate waaw mooy li euh, Mansour di euh, laaj rek est-ce que ñoom ay enquêteurs lañu il faut pas que euh, ñu fragiliser yenn ci ay institution ci réew mi ak ñenn ci ay liggéeykat ci réew mi su ma nee fragilisé yàlla dafa def ñu am gendarmerie bu xarala xarañ yàlla def ñu am police bu xarala xareñ ñu leen di woo sax ci yeneen i théâtre d'opération à travers le monde surtout en Afrique ndax Euh, professionnalisme bi ñuy wane yàlla may ñu euh, muy daanaka tous les corps habillés yi nga xamee ne ñu ngi ci réewum Sénégal armée police gendarmerie euh, les militaires paramilitaires mu am loo xam ne dañ leen ko bàkkee c'est pas parce que d'accord am na samay ñooñ ñu jàpp wala sama doom wala sama jarbaat wala sama rakku sama rakk wala yeneen ak yeneen nga bëgg na sa xel liggéeyub gendarmerie la gendarmerie ne peut pas se permettre di dem ci benn dëkk hmm. gàddu ay jeunes yu fa nekk. gratuitement gratuitement. Mm-hmm. am na enquête boo xam ne tàmbali nañ ko mais nañ leen bàyyi ñu àggale seen enquête te xam nañu ni euh, ci wàllug justice. Mm-hmm. am na yow loo xamee ni yoon may na la sañ-sañ wi bu ñu demee ba jàpp sa ñooñ euh, am nga sañ-sañu déjà wutal ko avocat. Mm-hmm. bu fekkee ni mënoo ko wutal avocat li ñuy wax naan un avocat peut lui être commis d'office justement sauvegarder li nga xam ne moom mooy euh, dignitéem sauvegarder également bu fekkee ni parce que ba léegi dañ naan présumé innocent jusqu'à ce que ñu prouve ni kii de liñ ko jàppee ak fee yi ñu ko jàppee euh, prouvé nañu ko ñu dem ci yoon te bu ñu demee ci yoon dafa am ay étape yow mi nga xamee ne yow yaayu ñooñam am nga sañ-sañu wutal ko avocat am nga sañ-sañu bu fekkee ne dañ ko jàpp ba war ko atte ba atte ko ne ni dañ koy teg ay daanu kaso wala ay daan ci wàllu koppar am nga sañ-sañu interjeté appel mm-hmm. donc ñoom fi ñu mën fi ñu toll nii lan lañ mën a def mooy toog ni tekk di setan lan la justice gendarmerie muy procédure d'enquête bi nga xamee ne ci lañ nekk parce que gendarme du dem jàpp noonu ñu mm-hmm. dugal am na ci euh, lu ñuy woowee benn euh, luñ ko sant mu jóge ci procureur ndax balaa ngay dem di jàpp mën nga dem jàpp ba pare ñëw ne je vais wu au parquet parce que damay woo procureur ne ko jàpp naa diw ak diw ak diw ci enquête nangam ak nangam ak. fii laa toll lii moom mooy kayit yi nga xamee ne moom laa ci euh, jot a bind. fii laa ci toll mu ne la nañ ma ko indil wala nañ ma leen indi buñ ma leen indilee par rapport ak yow li nga wax man naa leen déglu. naa xool. ak ñu ni mel léegi nag nga suivre étapes yi mais tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui ah ay euh, nit la ñu xam nañu ni lépp loo xamee ni gendarmerie def na ko wala police ci lu jëm ci wàllu enquête am na ci base yu légal wala ci base yu leer yu ñu ko génne mais nañ leen bàyyi ñu def. si li la koy firndeel sa biir est-ce que ñoom xam nañu ni ñu ngi chercher six ci ñoom. donc xam nañu ni 41 personnes la ñu jàppoon xam nañu libéré nañu 39. Euh, retenir euh, neuf est-ce que xam nañu ni ñoom waa population bi. ñu ngi cherché six ci ñoom. est-ce que xam nañu ci ñoom ñuy menacé am na ci ñoom ñu ñuy cherché. donc mu defe naa li gënoon mooy euh, mettre à l'aise ñi nekk ci biir parce que ci biir ñi ci nekk am na ñoo war ñoo xam ni xëy na bu ñu approfondi bu ñu approfondir situation yi ñoom xëy na du ñu jël benn peine. Hmm. donc il faut Sénégal foog ñu tàmm di collaborer ak enquêteurs yi muy la gendarmerie la police di collaborer ak la justice.